du des intérêts de, du président Ousmane Sonko waaw tey jii am na nañu mbetteel mu rëy a rëy ak maanaam ak jaaxle ci décision bi xam ni moo wadd fii ci tribunal bi ah man nag ni ma ko jàppee mooy day firndeel rek li Serigne Touba waxoon ni maanaam dëgg ala kuli àll lu mu yeex-yeex dina feeñ waaye aw nar lu mu rëy rëy rek ci detteelu la jëm ñaari at a ngi nii ci ginnaaw ñu xamal ni nu kii di président Ousmane Sonko dafa violé ki ñuy wax Adji Sarr tey tribunal bi moo wax ci boppam ci loo xam ne nii maanaam kii ñuy wax Ousmane ko teewul sax ngir mën a défendre boppam mu ni yow Adji Sarr li nga doon sàkku ci tribunal mënut a nekk ndax gis na ni sa kàcc sa wax ji ay kàcc kese la maanaam dara du ci dëgg loolu bépp sénégalais maanaam war na ci waaru war na ci maanaam am lu ko lu ko naqari ndax li tax mooy wax jooju tax na fukki ak juróom ñaari doom ci sénégalais yi ñàkk seen bakken ak ñi xam ne tegu nañ ci ci ginnaaw bi bi nu fësalee lu ni mel loolu vraiment kenn ku ne war na ko naqarlu ñaawlu ko maanaam ba mu jeex lan lan mujje ak ñun mooy que ni Ousmane Sonko dafay corrompre la jeunesse mais loolu ñi fekkee maanaam maanaam euh, de euh, procès bi mën na noo xam ni loolu wax ju la tegul ci dara parce que corruption day doon parle même pas de corruption à la jeunesse le code effectivement pénal parle de corruption de mineurs l'article 320 est très clair sur la question donc vraiment gàcce gu am gu rëy la ñu am ci ci décision bi loolu nag li xam ni moom lañ ko mën a jàngate mooy ñoom seen yéene nekkul woon lu dul fexe ba président Ousmane Sonko du bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm loolu moo doon objectif bi moo tax gis nga ni nu mujjee maanaam mooy disqualifier les faits retenir effectivement la corruption de maanaam daan ko ñaari ati kaso yoo xam ne nii maanaam daf ko war tëdd loolu li muy firi rek mooy maanaam euh, tey jii on la mais en fait donc du prince dans la justice sénégalaise te loolu c'est regrettable te nous le dénonçons avec la avec notre dernière énergie loolu nag lan bëggoon hmm? waa loolu loolu dañ ci wax ñun avocat yi ginnaaw bu nu jugee ci maanaam yu ni mel waaye daal li ma tax xam te sénégalais yi war koo xam mooy maanaam euh, depuis deux ans ñu ngi ni wax ni kii di wax président Ousmane Sonko dafa violé kii ni wax aji Sarr tribunal bi xam ni moo doon àtte lu ni mel ci loo xam ni sax kii xam ni moom lañ accusé teewul moom moo wax ni ki xam ni moo wax ni dañ koo violé li muy wax dara amu ci du dëgg waaye nag pour man koo condamner ba du mën a bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm moo tax ñu disqualifier les faits retenir ce qu'on appelle la corruption mais kenn ku ne xam na ni corruption boo demee les dispositions de 320 du code pénal sont très claires très claires sur la question mais ku am xel xam ni maanaam li ñuy wax dara teguwu ci ci wàllu xam-xam maanaam amul benn sukkandikuwaay boo xam mën nga cee sukkandiku ci maanaam décision bi pour wax ni loolu am na moo tax déedéet c'est pas possible parce que teg loxo gi maanaam tribunal moo ko mënoon di décider mais tribunal wax na ni loolu aa aajowu ko kon loolu li muy firndeel daal rek mooy ñoom seen objectif du du atteindre du du arrêté maanaam Ousmane Sonko na xam na ne arrêté ko moom mooy tuur maanaam musiba ci réew mi waaye problème bi mooy nan fexe ba du bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm te situation bi nu nekk loolu rek la wane parce que moom dañ ko jugé par contumace alors que mos ta jot maanaam benn notification bu mën a tax mu jëw fii ci tribunal pour layoo ak li xam ni moom lañ ko tuumal loolu nag vraiment nous le dénonçons comme ni ma ko waxee avec notre dernière énergie et c'est regrettable pour la justice sénégalaise. mais maître est-ce que ba léegi mënuñu jàpp ni que mën na bokk ci élection yi. mais nu muy bokkee non non ban voie de recours que non non attendez euh, xoolal damay wax sénégalais mu leer Ousmane Sonko ci élection yii jëm. décision bi day wane ni moom mënu cee cee bokk loolu na leer dugg ci bopp sénégalais bu ne mënta bokk ci élection yi. leneen lu la waaye man di wax waxula dëgg leneen lu waaye man di wax man bu ko layal ni mën naa toog waxul dëgg dama ni ci réew mi xam ne moom la ñu àttee ko fii ci senegal décision bii xam ne teg nañ ko ci kawam moom day wane ni moom mënatu a bokk ci élection yi ñu jëm na leer te loolu moo doon objectif état bi mais est-ce que ñun waa Sénégal war na noo mën a nungu ñaari ati kaso ñu ni ñu kii dafa violé maam Adji Sarr ñu rey ci jur ñaar fukk ak ñeent ci sunuy doom xañ ñu mën a dem ci nu nu neexe ak dikk ci nu nu neexe kenn amatul sañ-sañ addu kenn amatul suñ dox ci réew mi loolu waruñu ko bay mu neen te bu yaa Ousmane maanaam kii ñuy wax Adji Sarr bu njortee ni maanaam lii xam ni moo xew di ciy génn nax na boppam ndax lépp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii yoon may na nañu ko ginnaaw décision bi dinañu ko def incha allah